Euh, malheureusement pas trop d'accord si propos yu bëri yu honorable wax bon déjà fait un clin d'œil clin d'œil aux gens de Kolda là. Mm que euh, parce que bon c'est pas là foofu la ñuy sàkkoo jigéen ñeeg affaire yooyu d'accord aussi pour man y a des situations qui arrivent partout. Mhm. si Sénégal fu ne la mënta xëy. non non exemple mais non mais xam nga mais honorable honorable aussi de mais. laa am mais honorable bàyyi ma exemple waaw waaw mais d'accord mais mais di sàkk suñu waaw mais honorable exemple laa joxe waaw honorable waaw mais te waaw mais xam nga xam nga déggoo man la moom laay wax nii xam nga télé télé dafa am responsabilité li may wax noonu dama ne mënuñu nekk fii ci plateau bi mm-hmm. ñuy ciblé benn zone mm-hmm. pour wax dara dama kii dama koy dindi téye ko mm-hmm. kooku moom dama koy def loolu dafa am solo léegi li ma li ma lu ma doon wax mooy euh, il faut man bëgguma je veux pas faire un un wareef parce que boo taalee onze heures di fekk ndoy baan ak tata kii nu mu tudd euh, Evatra ak mami ñuy débatre ci loolu on en parle tous les jours on parle de par exemple benn couche bu vulnérable maanaam ñoo xam ne ñoo gën a neex a sàkku ci société bi mhm. te dañu nekk ci réew moo xam ne ku bàyyi xale yi ci mbedd mi amuñu papa amuñu yaay ñuy def tànku neen di kii ba 4 heures du matin bu ñu leen violé waroo wax cest di dire que ni ñuy làmbee mbirum mbirum euh, taalibe yi. Hmm. parce que foofu lay taalibe yi affaire yi ñuy jiiñaate ci hmm. taalibe yi ni ñuy ni ñuy aborder problème mu taalibe yi man ci loolu laa d'accord d'accord ma ci parce que tout simplement. Hmm. dañu war a am courage wax ci mbirum xale yi ñu bàyyi ci mbedd mi ah ñu leen di sàkku. di leen liñ ci xamul moo liñ ci xamul moo ëpp fuuf que liñ ci xam mhm. foofu la problème bi nekk mm. parce que parent bu nekk sa responsabilité la ah. ah pour nga garder sa doom kiy jaay caaf ci mbedd bi yor doomam mu responsable devoir devoir am la mais du man maa lay jox du man maa lay jox leçon de morale parce que peut-être que tu es obligé d'être ci mbedd bi di jaay pour nga mën a lekk sa njaboot lekk mm-hmm. donc pour man dama ne liñ li indi prétexte bi euh, euh, émission bi mooy que am na ay ay taalibe yu ñu wax ni dañ leen daan def lii dañ leen daan def la mm-hmm. ba jusqu'à présent ak ay xale footballeur waaw no xale footballeur yi c'est autre chose parce que xale footballeur dama ne dañu nekk si autre euh, dëkku yoon boo xam ne mm-hmm. passe partout dans le monde àddina mm-hmm. bi yëpp foo dem am na ñu baax am na ñu bon li am solo mooy boo demee bu fekkee nit ñëw na ci benn di entraîner ay xale def fa lu mu fa warul def bu ci yoon jotee def li mu war a def loolu nit moo mel noonu yëfi nit la nañ ko topp ba mu jeex ñu régler ko li ñu war a régler mais ñi nga xam ne ñoo exposé le problème des talibés sur dix cas yu mel ni huit yëpp problème mu talibé yi la te kenn gars yi amuñu courage wax ci liñ ci war a wax. Mm. tant xale yaa ngi ci mbedd mi di taxawaalu. Mm. ñu papa amul yaay il faut pas bu ngeen étonné wu dara am fi ñu naan xoolal sëriñ bi li mu def ko kooku du sëriñ. Mm. bu dee moom moo ko def. mais li am solo ba am solo warul bett kenn. Mm-hmm. parce que même bu ñu leen deful dara même bu ñu sàkkuwul xale yi waruñu leen bàyyi ci mbedd mi ñu tumuranke noonu. Mm-hmm. ku ñëw fii Sénégal Dakar gii ñuy wax ay statut spécial ak ay affaire balaa ñuy wax waxu statut spécial nañu dindi xa xale ci mbedd mi. xale ci mbedd mi sax mënuñu ko dindi ba pare naan ay statut spécial te kenn du laal. le problème des enfants là ñu nekk ci mbedd bi taalibe yi. le grand problème mooy que. ni ko war a aborder aborder wuñ ko boo ci waxu léegi amaane émission bi boo génnee suba benn oustaz dina génn wala benn ñaar def si internet bi saaga buuba ndur lu ne mu wax la ko xas say doom xas say lépp mais du ñu tere saa yu ñu ci war waree wax ñu wax si. c'est la réalité donc il faut pas aussi ñu jël affaire bi di ko folkloriser y a des cas yu nga xam li xew ay Dakar Sacré-Cœur loolu mu ngi ci justice mais loolu bu ñu ko tekkee ba régler ko je je mu arrivé tous les jours mm. loolu am solo mais li solo te ñu war a wax mooy que xale yi ñu bàyyi ci mbedd mi ñuy taxawaalu nit yi jël leen di leen utiliser di leen def lu nekk te kenn waxu ci ni ñu ci war a waxee. Papis Diaw waaw mais je pense que dafay nekk sujet boo xamante ne dafay neex am consensus. Mm-hmm. parce que dafay heurter les les valeurs. Mm-hmm. heurter la moralité. Mm-hmm. et que ñun suñu existence mu ngi am solo parce que nous avons notre humanité. mais boo poussé jàngal bi ba si ba si biir a biir la différence que nous avons ñun ak yeneen dëkk yi wala àdduna bi c'est ñun dañ leen justice daf leen wutal sax tur. parce que c'est une réalité sociétale dafa mm-hmm. boo demee Sri Lanka di nga ko fa fekk boo demee Japon mais c'est dans tous les pays du monde mm-hmm. on les appelle les prédateurs mm-hmm. xamuñu ko waxee si c'est exactement ça waaw on les appelle les prédateurs même le juge il sait quels sont les textes qui sont euh, préparés wala prévus pour cas yu mel noonu mais Sénégal mosoo gis mosaguma dégg par rapport ak récurrence yu affaires yi nga dégg autorité yi di installer c'est cette histoire d'existence de de de prédation pour ne pas dire de de de prédateur. parce que traitement bi dafay wute moom mooy dafa feebar. Mhm. oustaz mu ngi koy brosser léegi mais c'est une maladie boo génnee ci considération yow en tant qu'être humain man yow c'est que c'est des sujets yoo xamante ne tu as même du mal à xam par quel bout commencé parce que c'est c'est inimaginable parce que par mhm. exemple un nit bu tee xale boo am ñeenti at. mais mais tu peux je te jure ah tu tu n'arrives mënoo ko si quoi c'est que da ngay tu vois beau chercher da ngay toog naan waa lan moo ko war a motiver quoi lan ngay xool xool xool mais tu passes ta vie tu vas vieillir amul donc c'est un malade hmm. c'est un malade un fou allié comme on dit. pour dans ce que kuy liggéey ci milieu boobu hmm. nee na le pédophile effectivement dafay comporter wu comme un prédateur. mais wax ni et cherche des métiers en contact ak xale yi. feebar la. dama ne la feebar la boo. xamante ne merci beaucoup pour la pour la précision la précision. nee na tamit ñu bañ a ñu bañ a culpabiliser les victimes et les parents ndax 70 pour cent de ñi koy def. ci lay liggéey ni je le précise encore une fois na ce sont des gens proches de l'entourage et qui sont des gens de confiance. Mm-hmm. ñoom ñoo koy def. je continue mm. non non continue Papis waaw je vais damay damay daaneel sax pour wax ne euh, autant toutes ces réalités sont là mais il faut aller ñu ñu xool anticiper wala book prévoir nu ñu koy nu ñu koy arranger c'est-à-dire un malade un il faut essayer boo boo ko fajul complètement nga nga atténuer euh, jàngoro ji parce que bu fekkee dindi woo ko day nekk un danger permanent c'est-à-dire day nekk ce qu'on appelle le récidivisme te dañoo constaté si euh, euh, si teg si euh, statistiques yi genre yu mel dañuy récidiver mm-hmm. ils peuvent se calmer pour deux ans mm-hmm. pour un an pour trois mm-hmm. ans mais ils vont ils vont frapper encore dañuy dañuy frapper parce que lii moo tax ma ne c'est un problème mondial Mm-hmm. ce qui ça existe dans tous les pays xëy na fii suñu pesanteur socioculturel moo tax les gens ont du mal à en parler dafay mm-hmm. constituer un tabou d'autre part euh, autrement nos autorités n'ont pas anticipé sur ces mm-hmm. éventualités dans une société comme le Sénégal autant de paramètres qui yoo xamante ne mooy tax ne doo ko mën a maîtriser l'un li moom mooy un souhait en conclusion ñaan yàlla mu wàññi ko wala mu saafara ko à vie. Ah, en sachant que ah, c'est pas c'est il verse dans le fatalisme. ñaan yàlla. ñaan yàlla yàlla béy sa tool. ñaan yàlla boo demul ba pare nga ñaan. alors Charles <laughs> naa ne yàlla dimbali ñu si lii. bu bëggee seen dictateur ah. non dimbal na ca fekk loxo borom. waaw ñu xam nga xam nga Suède dañu tëj ay prison hmm. Suède dañu fa tëj ay prison ndax amuñu ñuñ fay yóbbu. parce que amuñu ñuñ fay yóbbu quoi. moi je pense que problème bi fondamental mooy dañ koy dañ koy éviter mooy ñun est-ce que nous sommes équilibrés fii la fii Malal wax fi benn affaire keroog ñu ngi ree ñu koy ne sax noppil bul wax loolu il avait fondamentalement raison cest dafa am loo xamante ne si déséquilibre la bokk moo am lu bokk si vice vice c'est l'habitude du péché le déséquilibre beneen affaire la mais ñun est-ce que nous sommes équilibrés qui sommes-nous ñun ñun ñun l'européen est européen l'asiatique est asiatique l'américain est américain ñun qui sommes-nous dañu suñu bopp bu baax il y a de ça da ngay dem place da ngay dem Daniel Sorano les danseuses dansaient les seins nus il y a mhm. quelques années Sorano may wax ni ça un peu a teew la nudité ban rapport la africain amoon ak nudité musul nekk la nudité musul nekk un problème. problème ah si. la nudité n'a jamais été un problème. pour en tout cas moi je parle au nom de l'islam waaw waaw bu dee bu dee bu dee sous ce prisme là nga nga wax. est-ce que je peux. mais mais émission bi wolof la oui non. non euh, euh, wolof la mais yéen a ngi làkk tubaab. waaw moom laa ñoom laay wax kay. ah bon d'accord <laughs> bu ngeen làkk tubaab làkk tubaab. waaw ah, ci ci gis-gis boobu. waaw mais mais mais mais mais bàyyi ko mu yegg. d'accord voilà. <laughs> xam nga dama ne africain médiateur merci beaucoup. <laughs> dama ne africain. africain après nga tontu ko amul benn problème. dama ne africain. identitaire bu am maanaa boobu dañ ko perte ñun on n'a pas de problème avec la nudité musuñu am problème boobu photo yoo mënut gis partout en Afrique noire nudité boobu daf fi nekk. femme nue femme bu dama la wax. musul nekk problème suñu. qu'est-ce qui s'est passé ba nga xamante ne nit di nga gis koo xamante ne boo gisee pepp tànkam rek nga feebar est que si lu nga gis la le péché est le regard dans ce que tu vois le péché n'est pas dans ça waaw lan mooy sa problème ba yow boo gisee jigéen a too ànd ji xale xale bu mel nii wala xale bu góor bu dee jigéen nga wax sax ñun xale bu a too ànd mhm. non gis nga dama lay ne parce que euh, viol dafa am pédophilie ak loolu yëpp mais bu ñu taxaw si pédophilie mhm. parce que c'est une véritable catastrophe qui se passe dans cette société mais mhm. duñ mais duñ dugg si biir lan moo indi loolu suñuy société mais boo amee 18 ans nu may nu may la doom nu may nu may la jabar 15 ans c'est ça mais dafa doon def lu bëri bon c'est vrai que maintenant nous sommes dans des temps modernes ñi ñi xeex les féministes par-ci ñi xeex fii def lii def lii def lii finalement on est devenu je ne sais tout on a plus de Sédar on a plus de Mignane on a plus de machin Thiendella on a plus tous ces noms-là on a plus de Ngor on a plus de de de Boy de Bouye tout la yëpp amatul loolu on a une autre identité faaw nag keroog professeur wax na ko fii Djibi Diakhaté mu ne ñaar am si ñun nga xam nit ki nous sommes tous des animaux nous sommes du règne animal. ñëpp ay animal lañu. ay des animaux du règne animal. il y quelque chose beneen boo xamante ni fii la nekk mooy la conscience boo xamante ni mënoo def luy maladie euh, kii euh, ce que font les animaux yow mënoo ko def. loolu il faut ñu ñëw si waxtaan si loolu tax ma ne notre société elle est malade fondamentalement il y a une psychologie boo xamante ne faaw ñu wax ko pour nous comprendre afin que nous mën a def le pas tey boo ñëwee partout où il ay xale la première chose à faire mooy de protéger les enfants par rapport aux prédateurs. Mm. Mm. mais dafa am loo xamante ne confiance nga koy def pourquoi ngay def confiance ki parce que tout simplement koo gis lu muy mbubboo munoo xalaat sa bopp que mu mun a def la naawte c'est da ngaa xamul adduna yow mm. parce que il suffit d'un regard pour nga xam ni ni tey kan parce que le vrai problème ñun jàngatuñu loolu ñu toog di surfer tey boo toogee on rentre dans des familles ñu xool dakaar 4 million de personnes dans Dakar nga dugg si yaay kër nga fekk fa da nga koy dee assez souvent quinze 20 personnes si biir yàlla papa yàlla maman mu am ñaar wala ñetti doom et puis on a les cousins les tata ak yu demee noonu est-ce que xalaatuloo que promiscuité boobu. Mm-hmm. mun na jur lu bëri. Mm-hmm. ñu am loo xamante ne day xew si biir kër gi xamuloo ko bu dem nga dem leen nga ay nit teg leen au contact des enfants de des tout petits enfants koo xamante ne. lu lu muy mbëbba la religiosité. Hmm. ba muy mbëbboo parce que Sénégal il faut que xam loolu dafa am jullikat ak jullit. Hmm. jullit du juum dina am tentation. maanaam yàlla bu lay ñu koy waxee bu lay nattu wala xaw ma. bu lay da waaw mu am jullikat. jullikat moo fi bëri. nga koy gis rek mu nekk mbaa catholique wala mu nekk mbaa kii nga ne ah kii si la c'est un homme patati wala c'est une femme dévouée dév xaw ma lu ne ndekete yow musiba la foog ñu xoolaat suñu bopp mm. foog ñu xolaat dans nos quartiers populeux Mmh. problème ba il faut que ñu réfléchir wax si. Mm. il faut que ñoo xamante ni ñu commencer l'éducation nu ngi koy wax di éducation yenn éducation sur la sexualité dans les enfants de basage âge. mais il faut faire très attention c'est bien mais je préfère que loolu ñu jàng ko kër gi à l'école parce que dafa am boo xamante ne mooy ñëw ah tey da ngay gis demee football ngay gis ay brassard euh, euh, couleur yi mais machin il mhm. y a nous sommes aujourd'hui submergés par des choses qui viennent de l'extérieur et nous-mêmes qui avons perdu notre identité maanaam xamatuñu du ñooy ñan mm. on est des c'est vrai on est des musulmans c'est vrai on est des catholiques moi je suis d'abord africain et j'ai pas de problème avec quelqu'un qui est quoi mm. bu dee góor ma nekk ci tóoratun bu dee femme c'est pas parce que ci ni que di nga tax man ma taxaw. Eh alors oustaz d'accord maintenant bu fekkante ne non bu fekkante ne oustaz. mais tu l'as répété mais tu as ressassé tu as ressassé.